fexeel ba ànd ak président Ousmane Sonko kon yaakaar naa la nga ma doon ñaan di ma ko wax naan ma def ko kon tey am na tey nag dari àdduna du tax ñu bàyyi ko dina ànd ak moom ba yóbbu ko pale incha allahu rabbi ñu ngir ñu bokk liggéey poste ñoruñu ndax bu ñu poste ñoroon yaakaar naa ne dem nañ ci Macky Sall bu ñu poste ñoroon yaakaar naa kon du ñu ànd ak yéen ñëwuñu ngir xëccoo ak yéen ñëwuñu tamit ngir di wut lenn du aw tur parce que ba dee tur am nañ ko ba noppi li ñu li ñu bëgg rek mooy ànd ak yéen liggéey te yàlla tax tey it toog nga président Sonko toog moo wax ko loolu sa kanam nga seede ko kon tey jii li ñu bëgg rek mooy yéen ñëpp ngeen xamoon ne ñun ànd bi ñu ànd ak ànd bi ñu ànd ak président Ousmane Sonko demande sociale la ci Sénégal demande sociale la ci diaspora bi demande sociale la ci bépp patriote boo xamante ne lu baax ñor na la bëgg nga lu baax bëgg ngaa liggéey sama réew kon ñun dañu taxaw ànd ak moom te yàlla rek tax waaye nag ànd nañu ak moom ngir benn condition lañu ñu ànd ak président Ousmane Sonko benn condition condition bi ñu ànd ak moom mooy lan muy ñu ñu ñu fexe ba 2024 mu jëlee ñu fi Macky Sall te loolu yaakaar naa ne mën na ko ndax loolu bu dee aw fit mi ngi fi bu dee doole jee mi ngi fi bu dee xam-xam bee mi ngi fi ndax dañoo war a weesu. fu ñuy comploter ci kaw ndoddu sénégalais yi war nañoo weesu foofu ndax tey li ma gën li ma gëm te muy lu wóor muy lu dëgg mooy oh, ñi fi nekk ñëpp kenn nga xam ne moom rek mooy solution bi ci Sénégal nga xamante ne bu jëlee réew mi dina teg ci réew mi yoon dina teg ci réew mi réew moo xam ne réew mi yoon lay doon te it def lu ne weng te dara du la fekk du fi amati sàcc bi ñu sàcc àll réew mi boo ko rawal ba tax ñuy lewal troisième mandat kon ñun war nañoo jug taxaw ngir loolu ne non lii du am te loolu président Sonko kese rek kot lañ am ci moom yaakaar parce que moom dong mooy solution bi kon ñun ñi nga xamante ay patriote lañ di woote patriote di woote gëm-gëm ak conviction nañu jaral sunu bakkan gis nga bu ñu nangu bu ñu nangu bu ñu nangu kenn nit ak minorité bu ndaw bëgg a jël Ousmane Sonko. bëgg koo néewal doole bëgg koo sàkkal pexe duñu ko nangu bu leen jaralee benn na leen xam ne jaral nañu fukk te fu ñu woo ñu wuyu leen fa lu mu jar dinañ ko def bu dee bakkan la dinañ ko joxe bu dee aw fit la dinañ ko joxe bu dee labiñ la dinañ ko joxe bu dee tamit mbooloo la tamit dinañ ko joxe kon na président Sonko dalal xelam xam na ñun dina jóg taxaw ànd ak moom ba lim bëgg ci réew mi ñu xeex ak moom ànd ak moom xeexal ko ba mu jot ko man Assane ak appel 221 ñi ma àndal dañoo jóg am engagement am détermination am gëm-gëm am conviction pour ànd ak président Ousmane Sonko ba 2024 ñu yóbbu ko ca biir palais te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def tey am nañu ci yaakaar kon nag na ngeen jàpp ne taxaw nañ nekk ab soldaar taxaw nañ nekk ab Baay Faal boo xamante ne dañuy taxaw ci wetam ci wàllu politique ànd ak moom ba li mu bëgg mu am ko du ñu mayati nag kenn koo xamante ne da ngay jóg di ko waxal loo xamante ne amul di ko attaqué wala nga koy saaka loolu moom duñ ko mayati nit ku mën a doon ko ko def ak koo mën a doon nag ñu kenn di leen jóg jaamaarloo ak yow ndax kat dafa jot ñun suñu patrimoine ñu téye ko suñu bopp te Ousmane Sonko suñu suñu patrimoine la ñun ñëpp nañu jóg taxaw ànd ak moom défendre ko jàppale ko te yàlla rek sax ndax yombul man Mbacké Mbacké seul ñu taxaw propose la ay millions yu bëree bëree bëree bëri ma rejeté ko ndax lan samam réew ma rejeté ko ndax lan bëgg réew mi te tey su ma neexoon ma jël ko dem maanaam ànd ak ñoom waaye sama ngor mu yuma ko te dafa am benn baat boo xamante ne maa ngi ko doon wax te ba tey jii ci baat boobu laa nekk du ñu ma mas a gis ma ànd ak président Macky Sall ci politique di ànd naan maa ngi koy jàppale loolu saaga la ci man loolu xas la ci man kon na ngeen jàpp na yéen fa ngeen nekk foofu laa nekk